L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. Islam du diiney fo diiney jaamu yalla la waaye lu def ci yonent bi lañ ko war a xam ngeen phénomène bi am ci koor gi Sénégal lu nekk nga dégg am nañu ay ustaas yoo xam ni bis bu nekk wàcce nañu jaamu yàlla bu bees ci diiney muhammad lii ñu def ñoom ñépp maa ngi leen di lancer défi maa anzala allahu biha min sultaan du dëgg du sunna du diine muhammad jàngalewu ko sahaaba yi jàngalewu ko benn ustaas nekk ci rajoom rek wala téléem wax ba ci yàgg ne naafilay bisub tay bi naafilay bis sos ngeen ci diine yàlla lu mu jàngalewul yen ustaas yi na ci télé yi sos ngeen ci diiné muhammad lu mu jàngalewul ya aisha neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weeru koor ak lu dul weeru koor daawul julli lu ëpp fukki rak ak ben waaw wala déet lol de la hadis yi wax yow nak nga tëb ni nafila tay ñent la waaw rakka bu ñeek bi faatiya 31 inna anzalna inna anzalna foko jangé jàngee ya yaa maa ngi lay laaj ci ban mazhab ci mazahib yi nga ko jàngee ustaas yi yéen ñiy wax rajo yi yéen ñiy def émission naafila yi ngeen di joxe ci ban fan la ko yonent bi jàngalee fan la ko sahaaba yi jàngalee julli moom la yàlla jàngal yonent bi yonent bi naafila ba weeru koor jeex musul wax ni bis bii juróom benni rakka ba ca topp fukki rakka ak ñaar ba ko manqué ñetti rakka yéen a ko sos yéen a ko lay di ngeen ko layoo yowmal qiyaam te yéen a ngi réeral sénégalais yi di leen indil ay xuraafaat ak bidaa yu bokkul ci diine muhammad yéen ñiy déglu télé yi naafila bu ñu leen wax ci télé yi bu leen ko def du diine yonent bi jàngalewu ko du diine yàlla jàngalewu ko amul benn julli bu spécial ci benn bis ci lislaamu muhammad amul man maa la ko wax julli bu spécial ci benn bis ci diine muhammad bi amu ci xanaa seen diine waaye amu ci diine ji kenn waru cee tëral lu muhammad tëralul boo nee nit ki nag naafila tey bi juróom benn rakka la bërkaati démb dama mer ba noté affaire bi bi waa ji waxee ba pare ndeysaan xoolal ay théâtre kat théâtre ba pare nga bëgg ay dars ci théâtre bi ah commencé alhamdulilah rabil alamin est-ce que li ci bu ngeen ko ci jangate nangam nangam xam nga yow ñu ngi lay dañu leen di mais am leen am moins honnêteté intellectuelle am personnalité moytu leen li ñu leen di ay fokat télé di len foloo di len nax ci ay jeu yo xamni ni su ngeen len ci tonto wallahi yeen ngi reeral nit ñi te yalla dana leen ko laaj ndax ay fokat ngeen top fa buñu fa wo len xam nañ am na ñun jul wo de dofuñu billahi dofuñu dofuñu seeni invitation ak seeni special oustaz lañu yoré ñu yoré islam def ko tisi di dag rek di ñawal gaay lu gaay def rek nga uti hadis bu ko tollol ragalal yalla ci li nga jang ragalal yàlla ci li ngay wax nit ñi ragalal yàlla ci maire bi jël naafile bi ngi ko jox diko def ndax xamut ragalal yàlla ci pa bi jël naafile bi ngi ko jox diko def ndax xamut ragalal yàlla ci ndaw li jël naafile bi ngi ko jox xamut yawmal qiyam bu la yàlla taaje ne la julli bi nga indi fan la am ci islam do am layam do am layam lay mom ni la ko muhammad defé rek waye muhammad julli na six rakka bu nek 11 inanzal naaw amul amul ya ko sos yaa ko fi teg bakka na la ko defloo te di nga ko layoo